waaw comme nu mu demee rek match bi ñun ñëpp xamoon nañ ne match bi tey du yomb ñëpp xamoon nañu ne du yomb malgré que teel nañ dugal teel nañ marqué <coughs> comme le points ah. mais gis nañ ne Ivoiriens yi sonal nañ ñu xaw a euh, ñu ngi xaw a rey léegi <laughs> comme ni nga gisee mais loolu yëpp garaawut loolu yëpp garaawut ah. waaw waaw waaw oui si si si si loolu boo gisee mooy bi biñ dugal rek. bi biñ dugal moo waral lii lépp ah mais li moo gën match moom nii la mënoon demee ñëpp xam ne ni lay demee mais am nañ yaakaar que deuxième bi dina dina gën a baax incha allah waaw waaw deuxième dina baax waaw avec booy nekk ci banc bi suñ duggee ñoom Ilimane gars yi yëpp suñ duggee euh, yaakaar nañ ne dina gën a baax incha allah waaw xanaa Ilimane ndax euh, boo gisee lii Pape Gueye ñu ngi ñu ngi gis si ñu gis tey ñu ne ñoo dafa mujjee forfait Pape dafa mujjee forfait Pape Gueye ak yooyu mu ci banc bi ñoom Nicolas Jackson le joueur de ñoom ñëpp ñu ngi ci bi est nga lii waaw ndax seen biir dëkk lañ nekk moo tax waaw match bi <laughs> bi kontaan nañ si nag parce que xoolal premier premier mi-temps rek ñu dugal kontaan nañ si macha Udah